alhamdulilah rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wala udwaana illa ala zaalimiin astaxiinuka rabbi wala istixaanata illa bik wa ahmaduka wala zanaahu ila aleyk wa usalli wa usallimu ala sayidina wa mawlana muhammad lazi jaxaltahu rahmataka lil aalamiin wa taxu miskal xitaami li zahiril mursalin wa baad mbokk yi ñuy seetaan te dañuy seetaane fii ci RDV muy rajo Dunia Vision dellusi nañ beneen yoon ànd ak yéen ci seen spécial tabaski di ñaan yàlla may ñu ñuy fekkee ko ay déwéni déwén mu fekk ñu ci situation bu gën bi ñu fekk ren ñoo ngi ndokkeel mboolem communauté musulmane ci li ñuy tuddee xeedul akbar di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla nangul jëf ji jëf jiit yàlla bu mu neen tey nag seen spécial tabaski ñu ngi ci fas yéene seq waxtaan ak kilifa gu mag di koo xam ne kenn la ci sëriñ si ci réew mi di woote kat di jàngalekat ñu xam ko ci cheikh Mouhamadou Maye Ali Cissé cheikh Mouhamadou Maye Ali Cissé bokk na ci liñ koy ràññee it ne mooy ki nga xam ne moo jiite mahadul afriqiya al amérikiya école bi nga xam ne moo nekk fële ci Medina Baye Niass e, ñi di fa jàngale njàngale mu mucc ci ayib ci wàllu diine ak mboolem luxaat yi ñu jàng ci àddina bi moom mooy ki nga xam ne moo jiite njàng ma foofa mooy teg programme yi ak ñam ko bokkat di ci liggéey loolu nag yóbbee woon ñu tey ñu contacté woon ko ne ko dañoo bëggoon seq ak yow jotaay jotaay bi nag tomb waxtaan bi ñu naal pour fas ci yéene waxtaanee ak cheikh Mouhamadou Maye Ali Cissé mooy as muwaasafaatoo wa dawroo fil mujtama ab sëriñ ay melokaanam ak rôlam ci société bi muy dund loolu biñ ci contacté moom xam nañ ne jotam bariwul sax mais pour liggéeyal diine ak bañ a tànqob la wooteeb ku ko woo moo tax mu nangul ñu ko comp ci jofam tuuti nañu danañu ko mën a defal yàlla dogal na yegsi nañ ci bés bi ñoo ngi jàkkaarloog Cheikh Mouhamadou Maye Ali Cissé Cheikh Mouhamadou Maye ñu jox la kàddu nga nuyu bokk yi waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di ku ñuy déglu di sant la ci jotaay bi nga xam ne ñu ngi ko am ak yéen bu jotaay boo xam ne dañ koo fas ngir diina lislaam ñu ngi sant yàlla ci loolu alhamdulilahi hamdan yuwaafi niamahu wa yukaafi mazida wasalaatu wasalaamu ala sayidi almursalina addaa'i ila allahi bi iznihi wa ala alihi wa saxaabatihi wa man ihtadaa bi salaam e, jërëjëf sëriñ bi comme ni ma ko waxee tomb waxtaan bi baatu sëriñ lañ bëgg a waxtaanee mu mel ni bëri nañu koy wooyoo bëri na kuñ koy ràngal amaana mën na ko ràngoo mën na ko bañ a ràngoo ñu bëggoon nag buñ toogee ak jëmm ju mel ni yow nga xam ne macha allah xam nañ sa xam-xam bu baax e, question bi ñu njëkk a laajte kan mooy ab sëriñ bu ñu xamee kan mooy ab sëriñ ab sëriñ nan la war a mel. alhamdulilah sëriñ mooy koo xam ne dafa pare ci boppam pare na ci yar boppam loolu la sëriñ si wax cheikhu man faraga fi ta'dibi nafsihi koo xam ne pare na ci yar boppam xam na tim di xamle jub na di juble ñu wax ne sëriñ mooy koo xam ne bu waxee fàttali la yàlla bu jëfee fàttali la yàlla xaalam dafay buurloo sa xaal jëmee ci yàlla waxamtim daf lay buurloo jëmale ci yàlla mu mel ni kon mooy al aalim al aamil koo xam ne boroom xam-xam buy jëfee xam-xamam ba pare di oote jëm ci yàlla waaye ànd ak am ndigal gu tukkee ci yàlla ci oote jërëjëf kon mel na ni ab sëriñ e, balaa sañ taxaw ñu ne ab sëriñ la dafay fekk mu doon koo xam ne ku mën a defare la ndax ku defarewu du defare mooy pare ci boppam gi nga déggee ci sa wax mel na ni sëriñ it kon jàngale war na ko ndax mooy ku war a ja ku jàng ba pare war a jàngale war a xemeem loo nit ñi woomat leen jëme leen ci yàlla e, kooku mooy sëriñ sëriñ yan critère la war a ràngoo jàng war naa jàng ëwalan mhm. war naa jàngale it comme alxuraan ni mu leen melalee walakin kunu rabbaaniyiina bi ma kuntum tuallimuuna alkitaaba wa bi ma kuntum tadrusuun mhm. yàlla melal nañu ne rabbaani yu mooy kan rabbaani yu mooy kuñ koo xam ne dañ koo askan yàlla ci bu la jógee waaye ñu mooy koo xam ne yu rabbi bi sigaaril umuur mooy koo xam ne mën naa yaraate ci mbir yu ndaw yi waaye nu ko alquran ñi alquran wax ne ñooy na mooy ñoo xam ne dañuy jàngale dañuy jàng téere bi ba pare di ko jàngale kenn ci suñ mag ñi daana wax ne sëriñ mooy ku jub te xam di jëfee lim xam bu ko kenn topput sëriñ la bu ko àddina yépp toppoon te xamut jubut dugut sëriñ sëriñ nag am na ay fasale yu bari hmm. ndax am na sëriñ boo xam ne liñ soxla ci moom mooy jàngale rek ku nekk bala ngaa jàngale li ngay jàngale war nga koo xam xam nañ ne kenn du nekk sëriñ yi daara alxuraan lu may fekk na xam nga alxuraan mën nga koo jàngale kenn du nekk sëriñ ci fiq lu may xam nga fiq mën nga koo jàngale kenn nekk sëriñ ci luxal arabiya lu may xam nga loolu mën nga koo joxe ndax faaqidu shay laa yu'tihi ku amut dara mënut koo joxe lu mu la eene eene ku amul lu mu la eene eeneel mënut laa jox nga kontine nag ci boroom xam-xam yi ci seen sëriñ naka lañ ko fasale ndax sëriñ boo xam ne ilmu zahir moom la ñuy jël ci moom am na kon mu mel ni cheikhu taalim la cheikhu taalim duhul luñ xeeb ndax ñi doon yonent bi sallallahu ci bunt boobu lañ nekk ñi doon yonantu dañuy jàngale ndax yonantu bi jàngale moo doon liggéeyam Abu Hurayra te ñëw na ci marché bi fekk waa marché ñooy naka jekk waa marché rek li ñu itteewoo mooy diw tono na diw perte na diw am na diw ñàkk na mu ñëw ne leen yéen a ngi fii te nit ñaa ngi ci marché bi di séddoo miraasam yonantu bi sallallahu alayhi wa nit ñëpp daw dem ci marché bi nit ñaa ngi ci jumaa ja di séddoo miraasam yonantu bi ni ñëpp daw jëm ci jumaa ji defe na xaalis bu ñuy séddoo la ñuy fekk foofu bañ demee ci jumaa ja lañ fa fekk mooy li miraasam yonent bi mooy fekk nañ ñuy jàng fekk nañ ñuy julli fekk nañ ñuy tudd yàlla fekk nañ ñuy sàbbal yàlla ñi del siyaar ne Abu Hurayra te ñun de marché bi fekkuñ fa ñu fay séddee dara ñuy jàng ak ñuy lii rek lañ fa fekk ñuy tudd yàlla Abu Hurayra te ne leen loolu mooy miraasam yonent ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nahnu maachira al anbiyaai la nurasu dinaaran wala dirhaman walakin nurasu ilman man axada bihi faqad axada bi xazin waafirin ñun mbooloo yi yonentu yi du ñuy donn dinaar du ñuy donn dërham waaye xam-xam la ñuy donnoo ku jël ci xam-xam boobu rek jël nga cër bu law ci yonentu bi mu mel ni kon sëriñ mooy boroom xam-xam yi boroom xam-xam yi jëfee seen xam-xam ndax xam-xam rek duut moom lañ soxla waaye xam-xam bu ñuy jëfee moom lañ soxla yonent bi mus na ci xam-xam bu ñu dul jëfee kon al ulama warasatul anbiya boroom xam-xam yi ñoom ñoo donn yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa xam nañ ne am na li ñu donnee ci moom muy xam-xam boo xam ne dafay tegtale yi ñuy jëfee di tegtale naka lañuy jullee naka la ñuy ooree naka lañuy ñuy jëflantee ci suñ biir kon ulama zahir yi ñooy ñi nga xam ne xam-xam boobu moom lañ doon doon nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay waxam am na ñoo xam ne ni ñooy sëriñ yi nga xam ne donn nañ xaali yonent bi sallallahu alayhi wasallam te xam bii sax ñi koy jël jëluñ ko lu may rek ngir mu àggale leen ci jëfee ko jëfee googu àggale leen ci xaali yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne man amila bi ma alima awrasahu llahu ilma ma lam yaalam looloo tax sëriñ si ñooy boroom xam-xam yi jëfee seen xam-xam ba abu xanifata wax na ne ida lam yakun al ulamaau al aamiluuna awliyaa lillaahi fa laysa lillaahi bu fekkee ne boroom xam yi nga xam ne dañuy jëfee seen xam-xam ay wàlliyu kon yàlla amut wàlliyu kon mu mel ni lim bugg a wax rek xam nañ ne yàlla am na ay wàlliyu ndax yàlla mel na leen kon wàlliyu yàlla yi ñooy ñan mooy ñi xam di jëfee li nga xam ne moom lañ xam sëriñ si wax nañ ne cheikhu taalim wax nañ ne cheikhu tarbiya wax nañ cheikhu tarqiya ñoom ñëpp ci taalim rek ci la ñuy delluwaat Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu dafa firi xadis yoo xam ne eh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax saxaabi yi bu ñuy wax abu juhayfata ne ko salil ulamaa wa xaalit alxukamaa wa asxaabi alkubaraa na nga laaj ulamaa yi salu ahla zikri in kuntum laa taalamuun allah ko wax ci alquran ba tey yonent bi ne ko na laaj ulamaa yi waaye na nga jaxasoog xukamaa yi xam nañ ne xakim mooy koo xam ne dafa mooy xam-xam buy jëriñ bi nga xamee ne yàlla wax na ci alxuraan ne wa maa utiitu min al ilmi illaa qalilan xam-xam joxuñ leen ci lu may lu tuuti waaye xikma moom wax na ne wa man yuutal xikmata faqad utiya xayran kasiran kuñ jox xikma jox nañ la xiw gu bëri ndax xikma mooy xam-xam buy jëriñ kon xukamaa yi mooy ñi nga xam ne nii dañoo am xikma waaye kubaraa yi ba tey mooy mag ñi Cheikhu Tijaani firi ko ne ulamaa yi mooy ñan mooy ñi nga xam ne dañuy jàngale lan mooy li war ci shariatu lan mooy li nga xam ne def ko dafa war bàyyi ko euh, dafa xaram lan mooy li nga xam ne ku ko def ñi tagg la ku ko bàyyi ñi ŋàññi la naka ngay jaamoo yàlla loolu ulamaa yi ñoom ñoo méngoo loolu ñooy jàngale loolu xukamaa yi nag mu ne mooy ñi nga xam ne dañuy xamale gàkk-gàkk yi nga xam ne moo nekk ci bakkan nga xam ne gàkk-gàkk yooyu nekk ci bakkan bu nekkee ci bakkan bi xam-xam bi nga xam ne mën nga koo jël ci ulama yi mën naa nekk ak yow waaye mën naa ñàkk am mën fës mën naa ñàkk am jaaruwaay mën naa ñàkk am tesir ci mu mel ni ki kañaan mu mel ni ki rëy mu mel ni ki naw sa bopp kon xukamaa yi mooy sëriñ si nga xam ne mën nañoo notanteeg jaam bi jublul ko ci notanteeg bakkanam ba nga xam ne bakkan boobu dana tàggatu tàggatu ba mën a jël atte yu jugee ci yàlla dana mucc ci kañaan dana mucc ci feebar yu bari te loolu kenn mënta doo jullit bu baax lu may am nga loolu kenn mënta doo jullit bu baax lu may am nga jikko ju rafet kon mu mel ne xukamaa yi mooy ñi nga xam ne dañuy tàggat jaam bi ba not bakkanam bi nga xam ne nii toujours moom mooy dox digganteem ak li nga xam ne moom la boromam bëgg ba bakkan boobu toroxlu ñeexal yàlla jaam bi mujj topp boromam am na ab saxaaba bu ñuy wax abdullah ibnu salaam yonent bi sallallahu alayhi dafa mas toog bés ci jotaay ñëpp a ngi toog yonent bi sallallahu alayhi wax ne buntu bële am na ku fay génnee léegi nit la ci niti àjjana yi ñu toog tuuti abdullah ibnu salaam génnee ci bunt boobu ñëw toog ñu toogaat ba ca bés ba ca tegu mu ne am na kuy génnee ci buntu bële léegi nit yi àjjana la muy Nafs Abdullah ibnu Salaam mu ñëw toog ak njàppam du tooy xepp saxaaba yi dañoo baax ba kuñ gis nga baax rek bëgg nañoo xam noo def ba baax pour ñu roy la bañ jotaay bi tasee Abdullah ibnu Omar topp ko ne ko man sama baay daf maa mere mënumaa fanaan këram ndax mun naa mun nga maa may ma fanaan sa kër ñetti fan mu ne ko waaw ah mu jox ko ndigal muy fanaan këram waaye fekk moom lim jublu rek mooy bëgg xam kii nan lay defee ay guddeem ak ay bëccëgam ba tax mu nekk nit ci jànn mu koy seetlu ñetti fan ba ñetteeli fan bi mu tàggu ko ne ko man maa ngi ñibbi mu gungee ko ñu dem ba ci buntu kër gi mu ne ko dëgg-dëgg man sama baay merewuma woon damaa dégg ñaari yoon yonent bi di wax ne nit àjjana dana fëlee fii muy yow ma bëggoon a xam noo def ba nekk nit jànn te man dëgg-dëgg gisuma ci yow lu may li ma gis ci yow ndax moo wax ne gisut ko muy toggoo sax ay naafile yu bari guddi waaye seetlu na ne fu mu bi ko ci guddi gi rek dana tudd boromam mu ne ko waaye man li ma gis ci yow loolu rek laa gis mu ne ko loolu rek moo fi nekk de lii rek nga gis ci man rek ci li laa nekk mu dem bay dem mu aat ko ne ko waaye nag am na leneen lu ma yàlla may mooy benn jullit du am dara mu naqadi ma ci sama xol mu ne ko ah yaa ngi door a wax ni nga def ba raw nit ñi nga gis ne kon kooku feebari xol ci la mucc xukamaaw yi nag ñooy ñi nga xam ne mën nañoo xeex ak jaam bi yar ko ba nga xam ne ni danañ génn ci jikko yu ngàññ yi dana génn ci rëylu ndax alkibriyaa lillaahi dana génn ci xasad dana génn ci ci buxdu dana génn tim ci naw bakkanam te bépp jaam ku la gën a sori bakkan rek moo la gën a jege yàlla dama koy jegeel ci benn xissa dafa am benn raahib boo xam ne dafa nekkoon ci misra ah jublu yàlla tàggat ba kanam ba yàlla may ko ay xam-xam mu am ay kashf ndax xam-xam je xamkat yépp wax nañ ne ku tàggat sa bakkan rek da gis yàlla may la ay xar baax rawatina nag ku tàggat sa bakkan fekk yaa ngi tegu ci yoon yàlla yàlla may ko xar baax muy def ay xar baax ku feebar sax bu ñëwee ci moom bu ko laalee mu wér ah benn aalim min ulama il boroom xam-xam ci jullit ñi daal fiiraangeeg diine jàpp ko mu ne raahib bii daal man ragal naa mu nattu nit ñi ci xam-xamam yi yàlla jox ko ba nit ñi mën nañoo fitnawoo ci moom jàpp ne moo an moo nekk ci diiney dëgg damay jël paaka rek posone ko bu ma demee rek fëgg ko bu ubbee buntam rek ma jam ko paaka bi mu dee nit ñi noppalu ci moom mu jël paakaam ne ko dem ba ci kër raahib bi jaamukaay yàllaam gi mu fëgg ba mu fëggee rek raahib bi ne ko yaa aalimal muslimina irmi sikki nag ee yow boroom xam-xami jullit boobu sànni sa paaka boobu bala ngaa dugg su mu nekk ah mu sànni paaka bi ànd ak lox bi mu duggee nag mu mu jaaxle mu wax raahib bi ne ko waaw noo def ba xam ne man damaa amee paaka raahib bi ne ko dama uuteeg sama bànneexi bakkan yàlla xamal ma lii waaye moom it ci saasi rek mu ne raahib bi waaw waxal la ko fi lislaam ndax yow doo dugg ci lislaam raahib bi na ko luy lislaam mu wax ko lislaam kalimat kalimati shahaada dégg nga wax ko ponk lislaam yi ci saasi rek raahib bi nangu ne ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna mu ne ko gaaw nga ko nangu di lu tax nga nangu lu teelee ni mu ne ko dama ko en sama bakkan bi ba mu ko bañee rek ma xam ne dëgg la ndax bakkan dëgg rek la bañ kon xukamaaw yi ñooy ñi nga xam ne mën nañoo xeex ak bakkan ba nga xam ne nii bakkan bi dana tàggook jikko yooyu nga xam ne nii moo koy bañ loo dëgg moo koy soriloo yàlla ndax jaam yi toppee yàlla rek ku ko moom waaye ku topp yàlla rek bakkan nga topp faraayta man ittaxada ilaahu hawaahu wa adallahu llahu ala ilmin ndax gisuloo ku jël aneex bakkanam def ko mu yàllaam yàlla réeral ko ci kaw xam-xam xam-xam du réeral waaye topp bakkan mooy réeral topp sa bakkan mooy réeral kon sëriñ boo xam ne xakim la mooy koo xam ne mën naa dox diggante nit ki fexe ba faj bakkanam kon fu ñu tuddee sëriñ rek taalibe mënta ñàkk kon mooy ñi nga xam ne dañuy xukamaa yi mooy ñuy faj feebari bakkan yi kubaraaw yi nag Cheikh Ahmed Tidiane nee na kubaraaw yi mooy ñan mooy ñi nga xam ne nii mën nañoo dem ba nga xam ne danañ dindi xujub yi nga xam ne moo nekk diggante jaam bi ak boromam ba nga xam ne jaam boobu dana àgg ci boromam kon murid moo am ak muraad murid moom mooy taalibe ban taalibe taalibe boo xam ne mooy koo xam ne xam na maa li xadratillaahi min aljalaali xadaratu rububiya li li pay boobu am ci màggaay dem na ba yëg ko ci boppam xam na tim ne uluhiya am na ay wareef yoo xam ne ni jaam bi war naa taxaw ci loolu mu jug pour toggoo loolu waaye dem na ba xam moom ci boppam tim ne am na mu ngi ànd ak bakkan bi nga xam ne daf koy oo toujours ci lu uteeg li yàlla bëgg ci moom ndax yàlla melal nañu bakkani doomi aadama bi ci alxuraan wax ne ci làmmiñ yusuf ne wa maa ubari'u nafsi inna nafsa la amaaratum bi illaa maa rahima rabbi kon bakkan jaaruwaayam bu njëkk mooy digle rek lu bon yàlla wax nga topp ko bakkan bi bëgg nga topp ko waxtu boo xamee ne jaam bi dem na nag ba xam ne topp boromam dafa war ci moom te mu ngi am bakkan boo xam ne mu ngi bëgg a dox digganteem ak xàqi borom bi mu jug pour ut koo xam ne ni xam na boromam jub na bu jëfee bu bu jëfee jëfam jub bu waxee bu toppee ci waxam dana jub bu toogee defee xaalam sax xaalam dana ci jubee booba kooku mooy taalibe waaye keneen kii moom mooy sëriñ kabiru nag li cheikh Ahmed Tidiane wax mooy ki nga xam ne mën naa àggale jaam bi ci boromam cheikh Ibrahima radiallahu anhu nazmu bi mu njëkk a def muy ruuxul adab dafa wax critères yi sëriñ bi ñu war a ut watlub murabbiyan xabiran naasixan kaamila irfanin imaman saalixan maliku nafsaka laa tudabbiri wa kun kama yitin dawaaman tuxbari na ut koo xam ne murabbi la murabbi mooy koo xam ne mun naa delloo mun naa yar bakkan bi delloo ko ci cosaanam ndax dëgg-dëgg rooxo yëpp ci cosaan xamoon nañ yàlla ba yàlla waxee na alastu bi rabbikum rooxo yëpp ñoo waxoon balaa lan moo dem nag ba am ñu réere yàlla ba am ñuy weddi yàlla ba am ñoo xam ne nii am nañ ay soxla yoo xam ne moo gën a màgg màggaay ak yàlla ci ñoom dëkkaale bi nga xam ne roxo gi daf koo dëkkaale jëmm ji nga xam ne zulmaani la moo ko indi kon sëriñ ñi tarbiya mooy koo xam ne mën naa dem ba delloo delloowaat roxo googu ci cosaanam rek moo tax mu ne waxtu murabbiyan xabiran naasixan kon duun ne dafay def sax ci yow lu